داري وثبتنه بالهادي الوفي soxla woon leen man dafa fekk xanaa kon yëf yi daje rek waaw moo kii euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu euh, ma ñaan ndigal euh, siyaare sunu kilifa sëriñ Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir Mbacke xalif général des Mourides ak njabootu xaadimu rasul gépp ak taalibi sëñ Touba yëpp sëñ Afe maa ngi lay nuyu di la ziyaara eh, ak daayira bi nga xam ne bii liggéey bu rëy bi sëñ Touba di liggéeylu fii ci jumaa ji ci dëkkam bu sell bi ñoom la koy liggéeyloo tey nag danoo ñëwoon di waslu ak ci liggéey bi ndax jamono bi dafay jamono boo xam ne bii bu jaxasoo la yàlla dogal ay tawat jóge ca bitim réew dugg law ba réew ci laal réew mi tawat yooyu nag boroom xam-xam yépp wax nañ ne tawat yu soxar la ju gaawu doxinam te mën a yàq euh, li ma ciy tënk nag lu tuuti lay doon mooy li nga xam ne boroomi xam-xam wax nañ ko di njiiti réew muy président bu États-Unis ak président bu France ñooñu buma leen limee rek doy na kenn ku ci ne jël na alal ju bëree bëree bëree bëri namoon ko yóbbu feneen ci liggéey ci at mi bileen jàngoro ji bettee dañ ko fab def ko ci ngir xeex ko ak jàngoro jooju milliards yu bari la Amérique li ñu natt mat na fukki budget Sénégal fukki at li mu war a yor Sénégal pour def ko ci France def na lu xaw a mel noonu ak wàññi tax yi mu mel ne tey jàngoro ji dugg ci àddina bi réew mu ne bu doon fii ak ñaari weer la jeex sa budget li nga nattoon ne danga ko doxale at mi vingt cinq pour cent dana ci manqué bu demee ba àgg ci juróom benn weer xëy na dana dem ci lu jégg fanweer ak juróom jëm kaw ci li nga xam ne nattoon nga ko am ndax économie bi dafa taxaw kon bu loolu amee te jàngoro ji dugg biir senegaal te ñiy wax nee nañu fi mu toll ci fiñ koy dégg ci réew mi ndakaaru ak Touba ñoo ci gën a siiw Touba nag di dëkku diine di dëkku xaadim rasul di dëkk boo xam ne mbooloo mu bëree bëree bari ñoo fiy dugg te doo xam fu ñu jóge ndax yaakaar sëñ Touba jumaa ji nu toog di néegub yàlla di kër sëñ Touba sëñ Touba ñaan ko ba yàlla jox ko ko ay junni junni nit ñoo fi jullee semaine bu ne kon lan moonu war mooy topp ci tànki sunu sëriñ muy sëñ Muntaxa mu sëñ Basiiru xam ne dafa yëkkati alal ju bari dimbalee ko réew mi muy ñaari téeméeri million loolu kenn mës koo dégg bi mu ko defee it mu digal ñun ñëpp kenn ku ci ne la nga man la tolloog sa doole nga jàpp ko ci liggéey bi mu mel ne tawat ji nag pour ñu daw ko ak xeex ak moom ak cet da cee am solo kon mel na ne lu deme ne ordre ak paan yooyu nga xam ne yi day ànd ak sat la ndax raxasu ba pare keneen raxasu ca amul solo lu mel ne saabu muy saabu yi nga xam ne ordinaire la ak gel bii ma tiim xam ne moom laa yor indi ko fii te commandé naa ci quantité bu am solo suba lay ñëw ndax fi mu toll mille litres am na yoo xam ne commandé naa ko muy junni litres am na loo xam ne danañ ñu ko livrer suba danañ ko indi fii ci jumaa ji fukki bidon dana ñëw yu vingt litres suba ñi ma koy eh, commandé wax nañ ko waaye loolu doyul ndax yor kii di wër kenn yor ko di pompe par loxo dana jël ay nit moo tax ñu xalaatoon wut ay appareil du doon yu yu rëy waaye yu dëgër la ndax inox la te dana def huit cent millilitres boo ci sottee ba mu fees mbooloo miy jaar buñ ko tafee ci mur bi ni mu amee ci service yu mag yépp bu ñëwee ku nekk rek da ngay toq boo bësee bouton bi ñaari toq waddu nga raay say loxo jàll du am rang du am bustule ñu bëgg koo def nag ci bunti jumaa ji bunt bu nekk ñu def fa ñaar loolu nag yu woon naa la bi ma koy daataan dox ba am ci sa ndigal yaakaar naa daayira bii it xam ne ñoom lañ koy jàppale te ñuy sunuy mbokki taalibe yoo xam ne lu ñu ne war nañ cànne yëgal nga leen ko moo tax ñu ñëw te du ñu yem foofu lépp lu ñu xalaat ne buñ ko doxee ànd ak yéen ci loolu dana indi sell gi ci biir dëkk bi rawatina na péncum sëñ Tuubaa mi ak fii nga xam ne mooy jumaa ji ak kër sëñ Touba fas yéene nañ ko ànd ak yéen ci sunu wërsëg ak sunu doole. loolu ci la dox tey jii xëy na nu gendarmerie ak police bu fi am monteel nañ leen appareil bi te daañu leen jox ñoom itam produit bi pour ñañ fay woo yoon woo leen wala ñu am fay soxla wuti passeport wala wutkat carte bu ñu demee ku nekk da nga jaar fa ngay jaar nga def ko. ba jàllale nañ ko ba gendarmerie bu Taïf sax Mbàkke it commune ba bëgg nañ ko faa def préfet it woo na ma ni ma nañ ko ko defal ci sous préfecture bi ndax mbooloo dañ fay def wàll googu daal ci la ñu bëgg a dox te di ci woo nit ñi xam ne mbir mii ñuy xeexal mbir mu bari doole la xameesul nag fu mu jóge waaye gëm nañ ne ñun bu nu àndee nun taalibey sëñ Touba yi ak dëkke ñun ñi dëkke Touba gëm sëriñ bi roy ci tànk yi mu jaar incha allah feebar bi dana génn dëkk bi te lool rek mooy li am solo kon yéen yéen a war a soññee yéen a war a digle ñoo ngi leen di xamal sunu yéene fas yéene koo ànd ak waa dëkk bi ci barkeb xaadim rasul tey ñaan yàlla lii ñu fiy def na barkeel te ñeneen nañ ko roy jàppale leen ci ba liggéey bi ngeen di liggéey ci cet ñëpp dégg ko te jëfe ko ci barke xaadim rasul loolu rek laa ne woon moom laay wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa mawala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu uh, alhaaj Mouhamadul Moustapha ñi ngi lay delloo nuyoo ci turu sëriñ Afia Biso mi di imaam ci jumaa ji di njiitul daayira muxaddamatul xidma itam ak mbooleem bureau daayira muxaddamatul xidma bépp di la dellu ay cant di la delloo ay ngërëm ci dégg gii nga xam ne dégg nga ko sunu woote te ñëw ci ñëwin wu am solo bii ginnaaw kilifa nga nag goo xam ne yàlla dafa dogal nga nekk ci bopp réew mi nga bokk ci ñi nekk nga bokk ci ñi nekk ci bopp réew mi danañu la wax ñun taxawaay yi nga xam ne moom lañu am ci liggéey bii bi nga xamante ni ñu ngi dégg tawat ji ci biti te ak seegul ci biir réew mi te dañuy wax ne musiba bu mu la sori mukk ba nga jàpp ne doo ci bokk del ñaan yàlla rek bañ caa bokk xéewal it bu mu la jege mukk ba nga jàpp ne ca nga bokk del ñaan yàlla di ca bokk rek loola moo tax dajale woon nañu ñun sunu ay membre waxtaan ak ñoom yee leen ci ni nga xam ne noonu lañu déggee ñuy waxee tawat ji ak nuñ koy moytoo doon bàyyi xel ne lu ne mën naa am bi yàlla dogalee ñu dégg ko ci réew mi woowaat nañ leen sensibiliser waat leen bi mu duggee ci biir dëkk bi rawatina booba it lañ daal di tàmbali jóg jël sunuy matuwaay bi ñu ko déggee ci biir réew mi rek te egseegul ci biir dëkk bi ajjuma ji nga xam ne moo njëkk ci ajjuma ji nga xam ne wax nañ ne am na ci biir réew mi yi nga andi tey jii moom la ñu jënd ci sunu kat doole yi bopp li muy néew néew teg ay ndaw ci bunt yi jumaa ji yëpp ñu taxaw fa di ko def ñu teg ci nag lancé appel ci mboolem ñi nga xamante ne bi ñoom ñoom ñoo bokk barab bi te muy barab bu ñëpp yi daje ni ko waxee léegi ngir lu ci waay mën a jàppe mu jàppe ko ni mu jàppe ko ci ndax ku ne xam na barab bi ni mu toll ci xolum murid ak ni nga xam ne ni la fi nit ñi di ñëwee loola itam ba mu amee yàlla dogal na am na ay benn benn yu ko jot a dégg ba taxawu ci mën nañ cee tudd ne commune bi joxe na fi ci lii dara soo soxna maam Xari Mbàkke joxe na fi dara tey jii yow mi itam ñëw nga indi dara waaye nag li nga indi itam dafa am weneen leneen lu ci dolliku te mooy lii ñi ko doon indi ñi ngi ko doon indi dégg nañ ko te rafetlu nañ ko te mat na sëkk itam te buñ ko andi dañ koy wuti kon mënu fee ñàkk waaye xalaat gi nga xalaat nag lu ci dolliku te mooy ay appareil yoo xam ne dañ koy monté nga xam ne léegi nit ña doon taxaw di ko di ko def danañ mën a dem defi leneen lii nekk fa wuutu leen nga xam ne dañ koy chargé rek loolu it nag beneen gisin la boo xam ne yow itam wax dëgg yàlla am nga ci mérite ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm bu baax a baax a baax di la wax ne gis nañu taxawaay bi bu baax a baax a baax a baax waaye daayira bii nag moom lii def dara du ci doy ci moom ndax euh, wax naa ko ci fu bari soxla nañu yii waaye soxla nañu it nag nañ bàyyil xel ni barab yi nga xam ne ci la ñuy waajale waay waajale way de way dawlu yi mooy armeel yi ak euh, morgue yi yee waxuma sax yii nga xam ne ñun moom la ñu waaye yii ci Tuubaa yëpp laay waxal maanaam ni ma koy faral a waxee tàmbalee ci armeel yi Mbusoobe yi ca Mbàkke ba ca yo ca gere ak yi nekk ci diggante bi yëpp ci ay armeel war nañ leen bàyyi xel bu baax ci lii ak appareil yii waaye ak ay lu demee ne ay gants lu demee ne ay masque lu demee ne ba ci gilet yi nga xam ne moom la ñuy sol ak dàll yi nga xam ne moom la ñuy sol ndax niñ koy faral di waxee ni nga xamante ne docteur ji yi faj nit ñi yore jàngoro yi noonu lañ soxlaa protection ñi nga xam ne ñi ngi liggéey ci lii noonu la ñu soxlaa protection te ni nga xamante ne docteur yi mëneesu leen a ñàkk ndax nit ñi faaw dañuy tawat di faju ji ñii di toppatoo ñi faatu itam mëneesu leen a ñàkk ndax faaw ay nit dañuy faatu ñu leen war a taxaw kon nag société bi ñoo leen war a yoral seen sécurité société bi itam ñoo leen war a défendre ñoo leen war a protéger itam kilifa gu toll ne yow nag kon bu ñu toogee ak yow tey jii rafet lu liggéey bu am solo bii nga def waaye initiative bii nga ci dolli nag te mooy kii nga xam ne indaale nga ko tey jii nga xam ne ni dana wuutu ñi nga xam ne xëy na dañoo waroon a bàyyi fañ nekkoon di liggéey topp nit ñi di leen defal tey danañ mën a nekk fañ doon liggéeyee nga xam ne kuñ joxañ rek nga mën a dem fañ koy defe defe ko fa loolu itam kon ñi ngi la ci sant bu baax di la gërëm bu baax waaye di soññi nag comme ni nga ko waxee léegi mboolem ñi nga xam ne itam ñu ngi bàyyi xel ñu bàyyi ñuy bàyyi waale xel ñooñu ci jumtukaay yoo xam ne danañ dana leen mën a aar ñoom itam comme ni nga xam ne noonu la ñuy aare fii ñi ngi lay sant nag bu baax di la gërëm ci taxawaayu démb bi yow naka jekk fii ñoo ko mas di bokk ñoo mas di ànd ci liggéey bi booba mbir yi egseegul fii waaye da ngaa xam ne taalibab Serigne Touba nga dëkk ci dëkk bi war a bokk ci lépp loo xamante ne bi luy jëmale liggéeyub Serigne Touba bi kanam la nga di ko def yaakaar naa ba ngay ànd ak président di ko indi fii booba doonu loon président waaw ba ba booba ak léegi itam waxtu wu ne yaakaar naa koor gu jot ñëw nga fii fekk si ñu fi ànd ak ñun dégg euh, teewe waxtaan wi teewe ndogo yi ñu fiy def loolu nag mooy wane ne na ko daan defe démb noonu nga koy defee ba tey mooy wane ne lii ngay def loo gëm la daraja ji dolli ko taxul nga bàyyi ko nekk ci pouvoir itam taxul nga gis ne taali teewul nga gis ne taalibu Sëriñ Tuubaa nga boo xam ne da war a ànd ak taalibu Sëriñ Tuubaa ci li ñuy def loolu kon ñu ngi la ciy sant bu baax di la ci gërëm di ñaan suñu borom mu dolli leen tawféex euh, dolli feex itam mboolem ñi nga xam ne jiitu woon nañu ci li ci ci lii ak mboolem nga xam ne danañ la ci roy sa ginnaaw di ñaan suñu borom yéene ji ci am te mooy tawat ji yam fi kenn bañati koo dégg fenn ci àdduna bi yàlla na ko suñu borom sottal ci barke Sëriñ Tuubaa wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu wal tudxilil musliha fi yadi wa fi daari wa thabbitanhu bil haadil wafi